nous avons liggéey ci éducation de base des jeunes et des adultes surtout alphabétisation mais ku nekk da nga nekkoon côté rek di euh, donc harmoniser nous avons mënuñu au niveau par exemple d'une région euh, telle et telle euh, organisation de la société civile acteurs nous avons fa di dérouler ay projet léegi cadre bi tey ñu cadre de référence de l'EBJA dafay permettre acteurs nous ñëw autour du ministère de l'éducation nationale bi porté EBJA Nous Nous été en que di yëkkatindoo di ku ministre ministère bi ni nationale organisation ñu mën a liggéey véritablement am résultat yi nga xamné ne parce que tasaaroo bi dafa yagg tasaaroo bi nak tay lañu bëgg mu deñ ñu liggéey en harmonie pour avoir les résultats escomptés. li ñu mëbët nak bari na parce que xam ngeen né secteur bi moy secteur bi nga xamné non formel lañ koy wax li fi nekk ci défi dafa baré mais nak euh, ma ci profito di remercier aussi partenaires yi partenaires yi muy UNESCO muy UNICEF muy USAID tay ñëw mom poussé ñu jàppale ñu ba nga xam ne tey def teg nañu dinañu valider tey euh, li nga xam ne moom la ñuy wax cadre de référence de l'EBJA document boo xam ne ñëpp acteurs yëpp ñoo koy partagé tey valider ko ba ñu mun a xam ne nag léegi am nañ document boo xam ñëpp day fédéré ñëpp en fait autour du ministère de l' éducation nationale mi nga xam ne moo porté EBJA donc tey ndaje mi dafa am solo parce que ba ñuy liggéey ba léegi amuñu woon cadre boobu dañoo tasaaroo woon ku nekk di def lu nekk say mënuñu la wax sax ne tey benn région bii kii moo fay intervenir léeg-léeg IF rencontre am ñu gis euh, ñu wax ne ñu koy dérouler euh, alphabétisation fëlëg yooyu léegi dañu bëgg cadre boo xam ñëpp xam éducation moo yore loolu alphabétisation ñu nekk autour du ministère de l'éducation nationale ñu mun xam ku nekk fa nga nekk lan ngay def ñu mëna capitaliser comme on dit donc ndaje mi solo bobu la am tay classe numérique benen ki la benen défi la mais ren defé nané euh, défi bobu commencé nañ ko relever.

Euh, technologie de l'information et de la communication kooku la ñu considéré comme analphabète kon nag alphabétisation fi mu nekk ni def na benn jéego bu am solo ci loolu te defe naa ne classe yooyu incha allah dinañ ko ubbi